jaa ngeen jëf mbokki téléspectateur yi ñuy bàyyi xel fii si Jokko TV ñoo ngi am mbégte ak contentement saa su ne ngeen di ànd ak ñun ci suñu programme tey nag bu ngeen gisee ki nu toogal ngeen xam ne ndaanaan la waaye mu nekk membre de PASTEF mu ngi wuyoo si turu Marème ñu gis muy défendre saa su ne Ousmane Sonko tey dinañ ko dalal suñu jotaay ngir waxtaan ak moom défendre bi muy defar Ousmane Sonko fu mu ko teg waaye dafa yore bës bi si réseaux sociaux yi lu si mel ne TikTok ak YouTube si répondre bu mu répondre benn waay ju doon attaqué Ousmane Sonko saa su ne réseaux sociaux yi di ko jël di ko dugalaate tey ñu fas yéene waxtaan ak moom gën a yaatal waa Pastef ñu bëgg ñëpp daal di lu jotaay bi ñu daal di waxtaan ki nga xamante ni tey élément Ousmane sonk la di Marème membre de PASTEF maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay fay nuyoo di am mbégte ak contentement ñëw teew fii ci say émission bi ñu ngi santaat borom bi julli ci Seydina Muhammad ñaanal suñu ku baax ki rek Ousmane sonk mu sell mi. ki judd ni mu juddoo màggi ni mu màggi jëfe ni mu jëfee ndax doomu mbër dafay nduru mbër ñu xam ne mbëree baayam sama waa waaji sama waaji ndam a ngi ci gàccaa ngi ci waaye sama waaji ndam dong la yal ko yàlla taxaw sàmmal ñu ko aaral ñu ko saa suñu xëy suñu cofee di yokk ci moom nga téye buzz bi si réseau sociaux yi ñëpp di jël di reprendre benn tontu boo tontu woon benn waay si li mu attaqué woon Ousmane Sonko mbir bi nu mu dikkee ak loo ko wax non kooku moo ne damaa yeewu rek tontu ko mais da ngay xalaat tey ji ma yeewu woon sangu ba set daal def sama tagal fas yéene jàkkaarloo moom su ko tontoo mbaa xam mais damaa yeewu rek tontu ko ndaxte Ousmane Sonko dafa doon koo xamante ni dafa sori ci ñun yàlla moo ko moom moo ko def te nit ku nekk ak yàlla di dugal sa xol am na ñoo xamante ni bu ñu sañoon bëgg ko mais mënuñu ko mais yàlla moo def mu moo ko def suñu xol. mooy loolu mu doon ko neex a bëgg nag Ousmane Sonko boo koy attaqué sax du koy wax lu ñaaw da ngay jëm ca kanam waxuma laaj nag nga bëgg ko am am looy sentir ci moom daal ndax dëgg lañu woo. ci ci ci ci réew mi jëm ci kanam la woo waaye tamit ci ci buumu njaameel bi nga xamante ni ñu ngi ñu ko takk ci suñu maam yi ñu koy jooy ba heure bi moom la bëgg ñëw ngir tàqali kook ñun raison pour laquelle ñu ànd ak moom ci yoon boobu li nga xamante ni moom la jël moom Ousmane Sonko mu sell mi lu tax yéen waa Pastef ngeen jàpp ni bu dul Ousmane du kenn. waaw parce que moom la fi yàlla teg xam nga olof Ndiaye nee na boo nangoo li yàlla dogal amaana doo sonn sa xol du jeex. te lii la yàlla dogal Ousmane Sonko yàllaa ko def ci xolu jaam ñi mbindeef mënu ci dara lii noppal ñenn ñi rek mooy ñu bàyyi ko ni ko yàlla def ndax boo ko bàyyi ni ko yàlla def rek mu noppal la incha allah. ñu gis ni Ousmane Sonko saa su ni ma ngi woote lu si mel ne ay manifestation gis ngeen ñaari concert casserole yi nga xamante ni organisé woon na ko am ñu wax ni bu mujj bi réussirul ñu bari ni échec la lan moo waral échec bi gaañu ñoo ko gëmatul nit ñi ñoo daw lu xew. olof njaay nee na bu la sa wujj di sëlam doo set loolu moo xew ci réew mi yàkkamti woon nañu mbir mi daal di échec mais ku naafiq nekkul ci yow wala amoo fooy wala wala état bi jëlul alal di la jox pour ngay niinal sa ceeb amaana di nga jël wax ji teg ko ci dëgg ndax euh, ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom nguur gi yor alal ju dul jeex di ko pasar pasaree bu subaa nañu woote tëgg ay kasoro wala ñu woote manifestation ba xam kenn kan mooy ñëw. boobaa picc yi sax duñ naaw. yàlla mais dafa benn loolu moo am tamit gis nañu bu njëkk bi man maa ngi woon ci terrain bi ak deuxième bi c'est c'est diamétralement opposé. non même pas mu ne am na ñu am na am nañu tëgg am na am na ñu tëgg am na euh, nit ku nekk tamit li nga bëgg a gis rek moom ngay gis mais nit yi génne nañu fësal nañ seen naxar ak lu mu mënti doon. moom mi toog ci bopp réew mi ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ànd ak moom ak bañ a dégg dëgg xam nañu ni ku sell ki moom la fi yàlla teg ko Marème Ousmane sonk nit ñi ñoo ngi wax ñi ànd ak moom dañuy saaga dañuy saaga kilifa diine yi mën naa si citer ay tur sax ah bu ma ko palaatu bi maye gis nañu ñu si mel ne Assane Diouf fan yee passé am na lu mu génn wax te gis nañ ni moom ak ñoom Ousmane Sonko ñoo ànd ak ñeneen ak ñeneen ñu naan ndaw ñi day nekk ci réseau sociaux yi di saaga kenn ñameetul wax mm-hmm. en tant que tey patriote gis nga sëñ bi sos dëkk bu nekk wàcc na fa ak saagam kenn dalalu ko tubaab bi taluñu sos taluñu fen ñu baal ma ci kàddu gi taluñu naafiq naar yi noonu ñeneen ñu noonu mais Sénégal bi mu ñëwee fii la ñu ko dalalee jox ko gëddëm jox ko tranga lu nekk ñu defal ko ko sos fii la nekkee en l'aise parce que da ngay ñëw wax lu la neex def lu la neex nit yi topp la ci loolu Ousmane Sonko amul kenn ci ñoom koo xamante ni mën na laa génneel fu mu saagaa kilifa diine wax wala mu wax leen wax yu ñaaw au contraire kii nga xamante ni moom moo yor réew mi moom moo moom moo jàkkaarloo ak ñoom wax leen li mu leen wax te li mu leen wax ñun ñëpp dégg nañu ko maanaam ñun ak ñoom ñoo yem ci réew mi képp Ousmane wax lu ñaaw mësul def lu ñaaw jëmale ci kilifa diine nit nag bu jugee di dem ku ne dina ko topp léegi nag nañu xool ñooñu di def lu ñaaw ñu jéem leen a seppi am fu leen teg même Assane Diouf moom ñu naan day attaqué kilifa diine yi di leen wax lu ñaaw man gisuma loolu gisuma loolu da réew bu fekkee ni dafay tàkk na nga xamante ni ñoom lañu yaakaar ñoom ñoo war a jug wax dox seen dox li nga xamante ni moom mooy tànku jàmm ba jàmm dellu siwaat mais bu fekkee ñoom dañoo toog waxuñu ci defuñu ci bu boobaa dafay dafay naqaree lijjanti ndax ñun ñoo ginnaaw yàlla bu fa dara disatul ni maam moo tax ñun ñun ñu topp leen ba léegi kon na kon nañu xam ni te ñun tamit suñu alal ñoom lañu koy jox da ngay gis ku liggéey at màggal gàmm jot mu dem jël la am yépp jox ko kon bu ñu bu ñu ñuy bu ñu ñuy mettital li ñuy def loo xamante ni teguwul yoon ñoom ñoo war a taxaw défendre damay wax mbokki téléspectateurs yi wala patriotes yi ñu demaat si suñu émission yi si suuf dafa am waaju ma jëloon mu ni Ousmane Sonko ngeen baal ma si kàddu gi ah, nit ñi dañ ko commencé jéppi parce que day wax lu bare ba mu am benn moo bu mu utiliser sax yéen ñi jàng mu ni trop de communication tue la communication Ousmane Sonko li muy génn di wax dafa bëri tey yow en tant que patriote noo gisee loolu. Ousmane Sonko li muy wax euh, dafa dafa dafa bari waaye bu gi bu génnee bu waxee wax lu am njariñ waaye bukkute ki nga xamante ni mu ngi ne patt fi mu ne patt askan wi di yanu seeni loxo fu nekk ñu daw fa yuuxu ndax mettit waaye it tamit ak ñàkk gi nga xamante ni moom moo nekk ci réew mi Ousmane ko def fi nekkal réew mi loolu la ñu war a xam gis nga nit du naafiq nit du du taxaw di wax lu ko neex ndax ndax am na koo xamante ni moom nga yaakaar mu jox la alal am na koo xamante ni moom nga yaakaar mu woo la pale nit yi Euh, jamono nag moom mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi Fatima ak Roqaya ak Zeynab ak Umu ki ñu amul kudul moom moom lu ne wax nañ ko ko ci lu ñaaw lu ne def nañ ko ko ci lu ñaaw te teewul dafa muñ kon Ousmane Sonko mu sell mu baax mi lu ñu ko def ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ànd ak moom dañuy ànd ak moom ci gëm-gëm loolu taxul ñu arrêté taxul ñu dellu ginnaaw benn yoon ndaxte moom la gëm te moom la ñu wóol te moom la ñu fas yéene jël suñu réew dénk ko ko ci kàttanu borom beeg mbaax le 29 bi passé gaañ nga naan da ngeen ragal ragal la wala da ngeen doon bañ ñu jël Ousmane Sonko denc ko si giri bi. xam nga Ousmane Sonko dafa baax ndey sant yërmande jee bari yàlla moo ko defal loolu te ñun ku ci nekk ci ñun xam na ne tabaski bi mu ngi jib si ndax bi ñu njëkkee def euh, manifestation bi ci euh, mars bi gis nañu li ci jot a xew ñu daal di toj Auchan yi am yu baree bari yu yàqu te am na ñoo xamante ni àbb nañu xaalis ngir ñëw jaay si xar am na ñoo xamante ni ñu lu dul li ñuy jaay pour jënd si lu ñu te ñiy gàmm si ak ñii raas bokkuñu tey ji bu wootee ñëpp dawandoo daal di fàqandoo ñëw am na ñoo xamante ni dinañu ñëw ngir ngir ngir xeex li leen metti mais am na ñoo xamante ni dañuy ñëw ngir ngir ngir jël loo xamante ni moom ñu ko te Ousmane Sonko santaanewul loolu raison pour laquelle daal di arrêté ba nga xamante ni jëmmi jamono bu jotee incha allah ñu daal di mën a def manifestation incha allah. en tant que jigéen noo gisee Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi classe bi nga xamante ni ma ngi koy classe Ousmane Sonko kàddu gu ñaaw gu ma ngi koy teg sa daram yaakaar naa ni moom mooy kuram Macky lu nekk ñu ngi koy wax Ousmane Sonko tey noo gisee loolu. xam nga àdduna lan moo gën a bon sëñ bi nit ko jigéen jigéen bu amul dignité amul personnalité ndax nit dangay am fulla ci sa bopp nit war ngaa doon koo xamante ni bu la àdduna di déglu. bu ñu la dékkee micro nga doon jigéen war a jur jur oustaz war a jur ministre war a jur ku nekk war nga mën a yëkkati loo xamante ni ëllëg bu ñu ko tegaati doo rus. mais moom li muy wax est-ce que amul ci preuve yu mu ko teg. non amul fenn fu mu ko teg xam nga nee naa la sànq sos dafa doon loo xamante ni Sénégal ñoom ñoo ko jox ñoo ko ñoo ko jox ak xam ak yelleefam ndax fii la ñu ko joxee li mu moom. ndax tey jii bu génnee sos ñu woo ko jox ko alal bu subaa day génnaa sos ndax loolu la xam Fouta bi dina génn wax mais amul benn preuve bu mu la mën a génneel wax la gis nga nit da ngay am fulla am fayda. te moom temps bi mu perte di ko di ko di ko teg ci deru ku sell ki su doon maay moom da koy dem defari xeesalam bu maasewul boobu nga xamante ne man doo comprendre photo temps bi bu génnee ci télé bi man damay bëgg suñu xale yi waa kër yëpp dem tëdd ndax bu dul loolu dina leen tiital kanamam gi man déjà daf may tiital vraiment mooy loolu. tey jii damay dugg tamit si salon Sweet Beauté ñu gis euh, moo indi woon scandale bi yëpp coowal Pastef bi loolu moo ko indi muy cadre Adji Sarr Ousmane Sonko. Adji Sarr viol Ousmane Sonko def na viol violul wax ji bëri na procès bi ñoo ngi koy topp di renvoyé waat coow li si am yëpp. gëm nga ni Ousmane Sonko moom moo demoon li nga koy tuumaal moo ko def waaw wala déet. Ousmane Sonko moo demoon loolu kenn warantewu ko te ku wax sa digganteeg euh, sa traayu bàmmeel ndax àdduna yàggul te bàmmeel xóot na xat na. te lépp lu fa waay def dina la fa fekk moo xam jëf ju baax moo xam jëf ju bon moom aji saar moom laay waxal ndax ñun ñëpp xam nañu ni affaire yi ay complot dong la moo ko lal na delloo si xelam te xam ne jigéen la te xam ne ñii ko jël di koy utiliser jël seeni doom di leen yóbbu ci réew yi di leen fayal ñu nekk ci jàmm moom bés dina ñëw ñu jël ko tegi ko ne la wala ñu sàkkal ko pexe ndax ñoom ñoo ñu nekk ci nguur gi bés dañuy ñëw ñu wàcc alalu àdduna nag bu la jaralee ngay teg ci doomu gor lu ñaaw wala nga yëkkati loo xamante ni jaaduwul mu wóor leen la ak sa aqulaayi taalaam dëgg bés na ñëw nga wéetoog sa sa sa sa sa bàmmeel te di nga ko lijjanteeg borom bi te lu waaye def fii moo xam lu baax moo xam lu bon dinga nga ko di nga ko di ko layoo sa borom. merci beaucoup mbokki téléspectateurs yi xam naa ni dama lay bàyyi nga tënk euh, wax sa dernier kàddu lancer sa dernier message. waaw di santaat yàlla bu baax naan alhamdulilah kontaan noonu nañ trop ci invitation bi di ñaanal ku sell ki yàlla sàmm ko yàlla aar ko suturaal ko. ñu ngeeg moom ba 2024 ba keroog muy dugg pale ñun ñoo koy accompagner incha allah yàlla mën na ko te sañ na ko yàlla na ko def ci barke yonent bi di ñaanal sama yaay bu baax a baax yàlla guddal fanam ak patriote yi nga xamante ni dinañu suivre ñoom it yàlla na leen yàlla defal jàmm ndax ñoom ñoo ñuy dooleel merci beaucoup ki ma dalaloon tey si sama plateau di Marème nekk koo xam ne membre de Pastef la waaye li muy wax ragalu ko ñamewu ko benn yoon yaakaar naa ne cofu ko débat bi gis ngeen ni mu demee képp koo xam ne patriote nga kontaan nga lool si moom nit ñi ñoo ngi koy safoo di ko béggee saa su ne di leen wax ni continue leen dem si page TikTok am ngeen abonné foofu gën ko yokk doole ndax kiy wax kiy déglu moom mooy mbokkam ma man Abdou Aziz Der bu maam Dabaax maa leen nekkuloon si micro bi fii si Jokko TV Bangoura moo leen nekkuloon si caméra bi waaye di bëgg a kaaraange bëgg luy defar seen yaram saa su ne ay tawat di leen dikkal ku yàlla baaxal koo xam ne li mu yëngu da siy dimbali doomu aadama yi te yàlla tax di oustaz Alioune Fall nekk si Pikine képp koo xam ne yàlla dafa def sa yaram nga am loo yëkk mën nga ko dem seeti mu nekk nit ku baax nit ku yàlla baaxal di leen jox dig daje beneen heure ak beneen numéro fii si Jokko TV